di nuyu suñu président mo ndjay rahma di contane ci mom bu baakha a baakha baax di jaajeufal nak suñu ki responsable fañang bour tay ji buñu xamé mo ndjay rahma yalla ak fañang bour mii la ndax bañu bëggé liggéey ak mo ndjay rahma xamuñ fuñu jaar mom moko ko deng amon na fuñu nekkon nak ñun ñu ngi yoré comité 105 personnes moo nekk ci sama ginnaaw léegi bi ñu demee de liggéey gisuñu foofu suñu bopp dañoo toog amul nag ku ñëwut pour ñu liggéeyal ko ñu bañ mu ne ah ma ne ko maa ngi ñaari secteur téeméeri photo carte d'identité yoo xam ne ko ba toog école 1 la ñuy liggéeyee maa ngi ak ñoom fu fanaan ak tëjal bunt bi duñ la boole bu soobee yàlla dinaa ànd ak fàññal nguur fàññal nguur yi tamit def lu mat sëkk ñoom confirmé ko waxtaan ak ñun te la mu diggee woon ak ñun dara dara manqué ca jigéen ju am jom jigéen ju takku jigéen ju am ngor. foo ko. maa ngi nekkoon ci sëriñ boobu liggéey ci ñaari at dégg nga te foog naa ne nag booy liggéeyal nit lii moo njaay ndax ma def ndey jafe na ci leader ndax boo wéeroo ci nit dalay mënu numéro. Euh, kii bi président kii bi leader bi doo ci jot waaw te man nag doxuma ci loolu ndax damaa yore booloo fas yéene liggéey ak ñoom yore leen weer wu jot ñu ngi daje sama kër di dareel suñ ñaar dërëm suñ dërëm bëggoon ku ñu ci dimbale te mënuñu koo am te nag président fas yéene ñoo ànd ak yow liggéey ak yow ba yóbbu la biir mairie yàlla mun na ko man na ko yal na ko yàlla def ci barke Sidina Mohamed gisuñu ci suñ bopp saa ngoone saa ngoone moo ñëw suñ kër di ànd ak sama jabar di jàngale mu dugal ma ci mu njaarax ma ne ma ñëw ci ma ne ko damaa sonn ndax fi ma ne dox naa ba sonn maa ngi ma àndal te gisuñu ci dara te nit lu muy ne yaakaar a tax mu dugg ci ñun siñ tabangoy géeye taxi boo wax du la yóbbu boo génnee dem ca bitig ba soo ñëwee barke sëñ Fall da ngay jàppaat ci soowa ngay aw suñ mbedd yëpp foos la suñ école yi bee ci bu xale yi école jàng soo fa demoon doo dugg ndax ndox ñun nag la tax ma kii sàngoo indi ñëw ma ñëw ci yéen yaakaar moo tax ak ku ñu dimbali maa ngi ñee ma àndal mënoo ne dangay ànd ak nit te soo soxlaa rek nga koy utiliser soo ci pare pare nga ci man nag damaa sant Guèye dama gaaw gis sa bopp ma bay sëriñ bob la newon ben keur mo moo dox suñ diggante barkeem bi ñu ko joxe pompe teeru tebeski kër ma jakar lol fi lañ ko ñew soti di ma ko won neexul nak ndax bayina ci mom kon suma ma dama bëgg japp ci lo xam ne. ñi nga xam ne nekkon fenen wax nañ ne. Euh, dañoo nekkoon feneen jóge fa ñëw loolu li ma ci wax rek mooy Kaolack moom damaa waxoon fii ci buntu permanence yi ma ne coow li mën naa bari coow li mën naa bari mais ku nekk xam nga boo demee sa la nga fay fekk ma ne coow li mën naa bari ku nekk itam mën ngaa fëgg sa dënn waaye ku ne xam nga mbër mi nga war a soxla koo war a soxla Kaolack ñu nu neen ñoo fi nekk bu ñu nax suñ bopp damay wax fii toujours ma ne appareil bi nga xam ne moo nekk Kaolack muy appareil coalition Benno Bokk Yaakaar wala majorité présidentielle bi nga xam ne moom la Macky Sall tey fii ku ko bëgg daaju ci sa digg dana damm loolaa wax dama ne ñi nekk ci njabootu Macky Sall fii tey parti teel man ni sàllum fii ku yaakaar ne mën nga ñew nax leen wala nga mbëkk leen wala nga bëgg lo mo a gi ëlëk da ngay nax sa bop waxon na ko fi la ko waxe won yàgg na ma koy waxat kaw la du dëkk bu ñu jëlé lu ñi mo ne kaw la du dëkk bu ñuy këpp jaay ko kaw la du këpp bo xamne ne koy jël bu dem di négocier yi kaw la fi président Macky Sall mo ñi wax lu ñi def waxoon naa leen fii ma ne bu ma waxee ne man lii la rek ñu déclenché moto bi ku ñeme rek taxaw ci koy yoon loolu laay wax ñi jugee kon feneen te jugee fa ñëw maa ngi leen di dalal jàmm di leen wax ne ñëw ngeen seen biir kër ñëw ngeen seen biir njaboot na ngeen na nag tam boobu leen leen amee bor parce que dégg naa leble woon nañ soble comme leble woon nañ soble nag bu fekkente ne ngeen faa bëgg jugee na ngeen ñëw ñu xam ñaata la ñu fay ko parce que bëgguma sama njaboot ñu naan ne na ngeen amee bor maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam